ñëw ci moom léegi nii ci suñu gis-gis ci moom euh, voilà muy euh, fii ci 94 euh, FM Sénégal bu ko defee rek voilà ngeen ànd ak ñun saa su nekk voilà. voilà Adji Sarr moomu nag bu ko defee Adji Sarr moomu nag wax nañ ni dafa mel ni moom li ko waroon lépp da ko doon taal lan moo doon jubluwaay bi voilà boo demee ci internet bi. dem ci réseau yi am na ci euh, jeunes yu bëree bëri yoo xam ne jàllale nañ vidéo bi wala def nañ ci ay chronique euh, ñu wax ni daal moom Adji Sarr euh, fi mu dëkkoon dafa mel ni daf ko doon taal voilà lan la ci jublu woon taal bi dafa bëggoon xaru wala lan la lu xew lu xew ba mu bëggoon a taal voilà beneen bi ci des tamit moo di ci histoire ndax histoire la fi mu toll ne ndax day koo xam ni nii yaakaar naa jëfam yi ak li fi jaar nit ñi duñ ko gaaw a fàtte. moo tax rek lu toll ni tarafetale ay ne rek bu ko dalee rek nit ñi dañ ciy wax ndax euh, day koo xam ne ni daa am fu mu jaar euh, daa am euh, lu mu doon jiiñ koo xam ne ni ñoo bokk réew mi kenn ki di góor kenn ki di jigéen muy Ousmane Sonko moom Adji Sarr di jigéen mu jiiñoon Ousmane mu jiiñoon Ousmane Sonko viol loolu nag nekkoon lu yàgg nit ñi di ko traité nit ñi di ko topp ñi daan dëgg la ñi daan du dëgg Adji Sarr mag ko jiiñoon nag. dafa mel ni daal dañoo xëy ni maanam moom ci jëmmi boppam fa mu nekkoon da doon da doon da doon da doon da doon wër di taal foofu kan lan moo xew lan moo xew ci moom lan moo tax mu bëgg a taal foofu fi mu dëkk màkkaanam lu tax mu bëgg taal loolu tamit laaj la lii nag fi ñu ko sukkandikoo ak fi ñu ko jëlee euh, fii ci seen xalaat euh, ak seen gis-gis fii ci 94 euh, point Sénégal mooy ci réseaux sociaux yi. ci réseaux sociaux yi ci site internet yi lañ ko jëlee mais moom daal nekk ne ki nga xam ni daal yaakaar naa ne fu mu mën a ne parce que nag fu mu mën a nekk rek gars yi dañ koy wër lépp lu mu def rek dañ koy wër parce que site internet yi moom léegi dafa xew wala information yi wala maanaam chroniqueur yi wala boo bëggee xam dara ci réew mi wala nga wax sa xalaat ak yooyu da dugg ci réseaux sociaux yi wala nga dugg ci eh, internet bi rek mooy réseaux sociaux yi bu ko defee lépp loo bëgg a koy xam. di leen fàttali rek maanaam yéen a ngi topp 94 point Sénégal FM di seen euh, rajo internet bi nga xam ni euh, bëgg nañ saa su nekk rek bu ñuy wax sa xalaat wala bu ñuy def gis-gis ngeen ànd ceeg ñun ndax gis-gis la ak xalaat maanaam kon wax sa xalaat la ak sa gis-gis ñëpp a ca xaj nag voilà euh, bu laajee téléphone sax wootee sax dañ koy dañ koy def. voilà kon yaakaar naa ne Adji Sarr daal mi ngi noonu nekk na li nga xam ne ni tey. Euh, daanaka site internet yi bëri reprendre nañ ko euh, wax nañ ci moom tamit euh, moom jàppoon naa ni man ma nga moom aji Sarr man jàppoon naa ma nga Angleterre ndax xam nga ci ginnaaw rek site internet yu bëree baree bari doon noonu wax naan Adji Sarr nga Angleterre dem na Angleterre voilà ñu gis ay photo yoo xam doon nañ ko dugal mu mel ni dafa defoon sapin ba génn yor mbuus yooyu noonu di mel ni kuy jëm ci maison te dëkk ba mu nekkoon moom nekkul ak immeuble yaag yooyu noonu ak photo boobu ñu gis nekkul ni senegal la moom voilà kon dafa dem ñëwaat walla ba tey euh, rumeur yi mooy wéy di continuer di am voilà parce que nag euh, lii nga xam ne ni moo di wàllu taal bi euh, yenn site internet yu bari ñoo ko reprendre ñoo ko wax ay chroniqueurs yu bari tamit wax nañ ko voilà kon ñu xel bu baax a baax xam ne daal lépp lu waay def rek na la leer ni bu dee lu baax la sa kaw lay këppwaat bu dee lu bon tamit sa kaw lay këppwaat voilà ñaar yooyu rek moo fi nekk lu baax ak lu bon bu dee lu baax la sa kaw lay këppwaat bu dee lu bon la sa kaw lay këppwaat gis ne fa ay nit ñu baree bare yoo xam dañoo xëy xëy rek xaru xamoo lan moo tax ñu xaru voilà am na yoo xam ne xajul ci doomu aadama doomu aadama bi bu ko gàkkal ci dara xamuloo ko dara bëgg dara ba mu tax nga gàkkal doomu aadama bi ba mu tax tamit nga jiiñ doomu aadama loo xam ne defu ko li gën a doy ci kaw suuf mooy tuumaal as góor soo xam ne dalay leer ne kii moom dafa set wicc ci lépp nga ñëw tuumaal ko kooku alaat kulli ali bala ngay faatu danga nga koy gis te boo faatoo day gën a metti ci yow moo tax nañu delloo subaat suñu xel bu baax a baax ay sénégalais lañ yoo xam ne nii dañoo bokk réew mi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw voilà te daanaka mën naa ne dëkk bi yaatuwul daanaka nag daanaka ñun ñëpp benn lañ kan ndax euh, leen li jar na ko ay privilèges jar na ko ndax bëgg tukki jar ko ndax ay immeuble jar ndax oto jar na ko rek liggéey jaar fi nga war a jaar ba keroog suñu borom di ñëw ndax ñaar yi moom suñ borom yaakaar naa ne ala kulli alin booy ñëw ci jamono da la koy bindaale muy wërsëg ak ak ak dee voilà wërsëg bala ngay dee noo def dañ ci jot sa wërsëg bu fekk am minti milliardaire nga waroon a doon bala ngay faat da nga doon minti milliardaire. bu fekkoon millionnaire nga waroon doon bala ngay dee da nga da doon millionnaire bu fekkee ku waroon a am oto nga bala ngay dee da nga am oto bu fekkoon ku waroon a am kër nga bala ngay dee da nga am kër bu fekkee nekkoon nga koo xam waroo am oto waroo am kër waroo am yooyu yëpp bala maanaam bala ngay dee yooyu yëpp da ko gis ba pare ngay door a dee kan loolu nañ ci bàyyi xel voilà fii nag gis-gis la wax sa xalaat mooy seen 94 point Sénégal FM maa leen fàttali bu baax a baax a baax 94 point Sénégal FM. dañ koo lëkkaleeg 94 Walf Sénégal TV bi voilà kon bu ko defee ngeen xam ne rek voilà gis-gis la ak euh, wax sa xalaat voilà bu ko defee kon euh, yaakaar naa ni euh, lii mooy première épisode bi nga xam ne nii dañ ko doon indi ci Adji Sarr mi nga xam ne wax na ni moom daal fa mu nekkoon daf ko doon taal voilà ci li nga xam ne moom lañ jëlee ci réseaux sociaux yi ci yenn site internet yi nekk ci réseaux sociaux yi voilà kon Adji Sarr a Euh, yaakaar naa ne indi nañ ci liñ ci war a indi lépp boo ko defee rek ngeen wéy di ànd ak programme 94 Walf Sénégal xam naa dinañ ñëw nag incha allah ci li nga xam ne moo xew ci gis bi ci 94 euh, Walf Sénégal TV bi voilà kon nag ñu ngi leen